ñu ne la tey la tukki bii jeex mm-hmm. nga tàmbalee jooy ak a ñaxtu mm-hmm. day wane la nga amoon lépp danga nga ko yemale sa tukki ba waaye bu fekkee ne fannaan la fa nga jëm loo mos a am yónnee nga ko fa te wóor na ni la ña nga ko doon ni warulu la te la nga leen ko fa la taxoon nga yónni leen ko def nan ko fa bu nee la tey la bi jeex da nga koy yàkkamti képp koo xam ne dañ ni tey lay faatu ma am saw naqar rek ne la wóoru lam dafa jagul rek adduna kenn ko fii sax amut kon nag nan laxasaayu bay jëf di yónnee ci suñuy kër bis ba nga xamee ne malakul mawti xool leen seen ko muy ñëw kenn ku si nekk si ñun ñi di toog bis na jot nga seen malakul mawti mu jëm si yow wóor na du la te wóor na léeg-léeg mu ngi ñëw waaye bala laa wanaa bala laa wanaat ginnaaw sakru daa génn saw yaram waaw ku nekk am na si ñun bis bu mel noonu man ngeen koo jàppee nag yéen si seen bopp lu sori waaye lu jege la bis boobee nag mooy sëb tukki ndax dugal da ngay ñibbi nan fexe nag ba bis boobee bu ñëwee mu bokk si bis yi nu gënal bañ a bokk ci bis yi nu gën a naqari waaw yonente yi daan nañ ñaan yow suñu borom yàlla nga def bis bi ñuy taseeg yow doon bis bi gën fi ñun nit yàlla yi daan nañ faral di ñaan loola ndax ñun ñëpp xam nañ ne adduna du ko waaye nag tëjël la nga am lépp yemale ko fii nga toll sa tukki ne la jógal da ngay dem mm-hmm. fa nga fa nga dëkk mm-hmm. te mu wóor na mu soo faa yónnee dara mm-hmm. te mu wóor na lépp la amoon bàyyi nga ko fii te doo yóbbaale dara tey lépp fi nga koy bàyyi ñeneen koy jariñoo waaye dund yow faaw mu diis yow faaw sa war a tàqale ko tàkk ci sa xol tàkk kenn woo xam ne ku dul yow rek waaw wala ku ëggul foofu nga àgg du ko xam ne noonu kon nan góor góorlu nan góor góorlu yàlla li mukk mukk mukk ngir ñu topp suñuy bakkan waaw ku topp bakken fii rek boo ko tàggale yàlla indi ñu fi mukk mukk mukk ngir ñuy topp suñu bànneex ku topp bànneexu adduna bànneexu àllaaxira rëcc la yàlla indi ñu fi mukk mukk mukk mukk ngir topp adduna képp ko topp adduna am war a suñu borom xañ la àjjana yàlla indi ñu fi mukk mukk mukk ngir wuyu wooteeb seytaane képp koo xam ne dëkk nga wuyu wooteeb seytaane ba léegi bu rasulullahi di woo ñoñam nga wuute ko wal iyaasu billaahi kon wan ginnaaw bakken day mel ni ak wan ginnaaw bànneex ak wan ginnaaw adduna ak wan ginnaaw seytaane si la leen mën a rëbbi mbooleem xeeti yiw yëpp jàpp leen waaye ñàkk leen a wan ginnaaw si la mbooleem xeeti yiw yëpp mën a rëcc nit si la mbooleem xeeti musiba yëpp mën a jote nit wal iyaasu billaahi sëriñ Mor boo fekketee koy fo sëñ Cheikh bu ngeen fekketee koy fo su ngeen ko mënee nax ba génn ko sa fa ma dugal ko si dëgg def leen ko su ngeen ko mënul nag ñaanal leen ko aw yiw te romb ko jàll te xam ne moom fo kasa nekk ak ka ko say dimbili ak kay xaritoog moom kenn mu gisee ak yow ma na ngeen gën a góorgóorlu bu baax maa ngi leen di dénk it mm-hmm. tey dénk sama bopp mm-hmm. te naa leen koo wax mm-hmm. képp ku si yëkkatib tànkam bëgg koo teg bala koo teg na natt fa mu koy teg lu yàlla gërëm te dëppoo njàngaleem rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam su ko adduna bu bépp ni ne waaw su ko wóoree ni dëppoo wut la yàlla gërëm njàngum rasul njàngaleem rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam su adduna bépp ni woon waaw it na ne déet te xam ne foofee loolu la ko sëriñ bi nee woon mag am na bëggoon gu mu ko waxoon bi muy dem si géej gi dénkoon ko laa ilaha illallah muhammadun rasulullahi ni ko laa ilaha illallah góoru saalum saalum la képp ku jaamu benn buur bu dul yàlla bis dina jot nga xam ne yàlla rek kay buur ni ko muhammadu rasulullahi képp ku jaamu yàlla te dëppale woo jaamu ak sunna rasulullahi sallallahu alayhi sa sallam bis dina jot nga xam ne yàlla yonent bi rek la yónni woon si jàmm kon na ngeen di jaamu yàlla seen kem kàttan te jaamu yàlla gi na ngeen koy dëppaleeg njàngaleem yonante bi seen kem tulaay kàttan loolu laa loolu loolu loolu la leen sant maa ngi ne di digal te di leen dégg bu leen dégg kenn ku naan sunna sunna sunna ngeen jàpp ni kookee lu mu wax sunna la waaw sëriñ bi de bi mu fi nekkee ba ni mu làqoo mos sa jëf lu wuuteeg sunna ñii ñuy tudde ay doom si moom it kenn mosu see jëf lu wuuteeg sunna loolu damaa bëgg ngeen bàyyi ko xel te xam kon loolu aw yoon la te yoon wu jigee jigee te yoon wu yomb a xam am fa jëmul fenn ay caaxaan jëmul fenn ab jayante jéggiwul fenn ak njub ak yitte ju kawe ak dëgg rek moo jëm fenn nan sa sax te ku sa xis sax na nga yemale adduna bépp dëgmal la ak adduna bépp wan la ginnaaw ndax moo du la tee yegg fa nga jëm bu la ñëpp dëgmalee te nga sax sa bàyyiwoo di nga yegg bu la ñëpp wanee ginnaaw soo yoon day gën a gaaw rek yàlla ñu yàlla dimbali waaw ndax tukkeem boobu si géej gi sabab bu baatin ba looloo ko waraloon nit ñëpp jublu nañ ko te nam bëggee jaamu yàlla si jëmmam ak sëlañ sëlañ si kaw si kawam guddeeg bëccëg mm-hmm. ma dal di ñaanoon yàlla ni ko ne ko yóbbu fu sori foo xam ne mm-hmm. su demee dina fa mën a nekk ba lam ko bëgg a jaamu lépp mu jàmm ko foofee mm-hmm. ñu doon ko indiwaat moo waral tukkeem boobu moom sëriñ kon loolu na ngeen ko xam bu baax a baax te loolu it na ngeen ko jàpp bu baax a baax waaw na ngeen ko jàpp Cheikh Ibra Fall daan na faral di wax loolu lu baree bari waaw daana wax ne sëriñ bee sabab lu yoon wi mu yoonu yoonu géej gi sëriñ bi si boppam moo ko sabablu moo tax euh, boo Moussa toog si dem ne ko sëñ bi tubaab bi da nga la déedéet sëñ jàpp tubaab bi sëñ bee leen jàpp mm-hmm. waaw tubaab bi mm-hmm. sëñ bee leen jàpp kon na ngeen gën a farlu mm-hmm. na gën a góorgóorlu na ngeen gën a tege si aw yoon rek loolu rek mooy mbir mi jamono jii nag lëndëm na waaye li muy lëndëm lëndëm ñetti làmpoo ngi nii yoo xam ne ku ko yor incha allah foo teg sa tànk mu dut loom muy xam-xam bu mat sëkk ak xàmmee ñetti làmp laa wax xam-xam ba ma sëkk ak xàmmee gu ma sëkk ak yitte ju kawe ñetti làmp yooyu loo si bëgg a dog mën nga ko saa dog loo si bëgg a neen mën nga ko saa neen yàlla ñu yàlla dimbali yàlla ñu yàlla dimbali maa ngi digalati di leen dénk ko naratee toogati si ab télé ñaari waxtu wala ñetti waxtu wala ñeenti waxtu di ko seetaan mm-hmm. kaamilu alxuraan bu la jigee mm-hmm. ubbi ko te nekk sa mm-hmm. donte ay wax nga say déglu wax yooyu boo ko dégloo ba noppi am sa iskay te jëfewoo ko dara la dul jariñ kon ubbil kaamilu alxuraan di jàng muy jëf ubbil xasid ak bi di jàng muy jëf waaw seetil sa mbokk ngir jëmmi yàlla muy jëf xoolal ku néew doole nga dimbali ko muy jëf soo ko mënul nag nga maandu si yëpp waaw te yor sa kurus muy jëf ba tey moo gën sànk dund maa ngi leen di xamal ni boo liggéey boobee nit ku nekk dina teew fan yi yi ko suñu borom joxoon si àdduna yëpp teew bu dajalee fan ya muy weer ya lépp teew su dajalee weer ya muy at ya lépp teew suñ dajalee at it lépp du génn ay waxtu waxtu yëpp teew waxtu wu nekk suñ borom dina la laaj loo ko sa defaloon ak loo defoon loo ko sa defoon bis bu nekk suñu borom dina la laaj loo ko sa defaloon ak loo ko sa defoon mm-hmm. weer wu nekk suñu borom dina la laaj loo ko sa defaloon ak loo ko sa defoon mm-hmm. at mu nekk suñu borom dina la laaj loo ko sa defaloon ak loo ko sa defoon mm-hmm. te boo bëggee wax lu dul dëgg ñun la déedéet wala yaasu bilaa bis boobee nan koy teg ci suñu kanam nan rus su naw lépp taxaw ñu dinu weer foo xam ne kenn du nu làq te loolu dara du ko waral lu may ñàkk teg sa tànk fu nga ko war a teg rek yàlla nu yàlla dimbali yàlla defal ñu tawfiq ko am àdduna amoo dara ku ñàkk àdduna ñàkkoo dara